le président conseil département de Kolda fi bu mu fi toog fii ba léegi 2014 vraiment wax dëgg yàlla lépp loo xam ne compétence am la def na ko lu mu fa war a def laa la moo éducation moo xam wàllu santé moo xam lu mun a doon loo xam ne compétence am la vraiment def na ko lu mu ko war a def hmm. mais am na loo xam ne état moo am moyen def ko te ñu ngi koy ñaax état bi président tous les sénégalais ak Mansour Faye xam nga ne lu mu mun a def laala pour Sénégal mhm. te tali Kolda yi nekk ci àll bi gën a développé gën a yaatu laala vraiment ñu bëgg nañ ko ñu koy ñaan yàlla defal ko jàmm mhm. di ñaan yëpp autorités yi képp ku si mun a jàppale sa morom doomu aadama fii si julli bi ñu jëm ni laalaw donc docteur yi nee nañu ku nekk na toog ñu war a toog laalaw mhm. man damay ñaan autorité sénégalais yi nañu respecté mesures barrières yi ndax feebar bi laa la wax loolu la alumal ci muy la wax maa ngi la gërëm benn fàttali sax di ñaanal proposé Moussa Faye defal ko jàmm ak Idrissa Ndir Fale ci Diender muy def liggéey bu am solo ci Sénégal jërëjëf jërëjëf sëñ Moussa ñuy euh, ñaan kendalu jàmm suñu mbokk yu nekk ci Fuladu yëpp jërëjëf antenne libre ci rajo Future Media 88 628 14 14 waaleykum salaam waaleykum salaam sëñ bi noo tudd ak euh, foo ñu woowee xaadimul quran wa Khalifatul muslimin Souleymane Di Mbour Ah, ñu ngi naka njaboot gi ma ne. naam. sama mbokk sëriñu daara yi laay njëkk a waxal. Mhm. pour ñu jël seen matukaay ñoom itam. Mhm. jiital ci ñaan ñaanal seen bopp ñaanal seen xale ñaanal réew mi. Mhm. xam ne solution solution yëpp yëpp yëpp yëpp mi ngi dellu rek ci yàlla. te yàlla moo ne nañ ko ñaan mu may ñu moom moo moom lépp kon sëriñ daara yi nañu góor góorlu ci seen daara yi góorgóorlu ci seen xale yi seen dëkkandoo yi masalan jàppale leen waaye ñu ngi ñaan yàlla nag subhanahu wa taala yàlla na fi yàlla jële mbas mi di ñaan oustaz yi seen bopp oustaz ñoom oustaz Mor Thiam oustaz bépp oustaz aline Sall bépp oustaz buy wax ci rajo bi nañ def seen délégation dem seeti xalifa yi jël fa ay kayfiyaat pour ñaanal réew mi jël fa ay sarax réew mi yëpp bokk ñaandandoo te nit ñi tam ay dañuy fontoo gouvernement bi ñenn ñi xam nga gouvernement dafa war a respecté askanam bëgg askanam tey Macky Sall man ni ma bëggee sama doom lu ko raw la Macky Sall war a bëggee bépp sénégalais la war a respecté bépp sénégalais ndax Sénégal yëpp a ko respecté moo fi ëpp alal moo fi ëpp doole moo fi ëpp sañ-sañ loolu yàlla ko ko may lan moo ko ko may nag mooy sénégalais yi kon nag sénégalais bu ci nekk tey daf ko war a gënal doomam santeem sécurité am njàngam surtout njàngam diineem surtout jikkoom ndax jikko yi tey boo gisee li yëpp tey am problème jikko yi moy moo yakku l'islam sayyiduna muhammad mo ñewon pour defar jikko yi kon bu wa man arada an zikri fa inna lahu maishatan bankan khat khat bi yep metti bi yep moy won alquran ginnaw yi yéemante amul miskin yaa ngi gën a dee réew mi ñu fi ab bari ay milliards bari nañu ñu fi bari ay tol bari nañu ñu fi am kër ay bari nañu waaye tey am na ñoo xam ne amuñu dara mënuñoo faju mënuñoo lekk te loolu c'est pas normal di ñaanal Kaatim Touré yal na ko yàlla yërëm te yal na ko yàlla delloo ci bàmmeelam di woo Sénégal yi nañuy rafetal diggante yi nañuy doon ay médiateur jërëjëf amiin jërëjëf dañ koy defar di ko rafetal jërëjëf amiin jërëjëf ñu tataan keneen buñ ko mënee gàttal bu ko defee ku nekk mën a dugg joxe xalaatam dina gën antenne libre ci 88 628 14 14 allo ma ni kenn nekkul ci buumu jokkoo bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ bi ñu ngi lay ziar. soxna Ba ma nuyu naa la siyaare la. delloo ziar. di la baal te de la baalaat ko. naam nar naa laaq. ndongo ni Cheikh Diop yàgg la. sëñ Cheikh est-ce que doo déplacé wu tuuti rek fi nga nekk. Ah, réseau bu baax a baax. ñu ngi delloo ziar. ñu ngi baax bi ñuy wax. ay auditeurs yoo xam ne ñu ngi ci rajo alo sëñ Cheikh bu mu jokko bi baaxul bu mu ne du gàtt ci 88 628 14 14 allo. allo. allo oui salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi noonu tudd ak foo ñuy woowee. Baye Ndoye dëkk Pire. ñu ngi lay ziar sëñ Baye. naka yaram. sant yàlla bu baax. naka liggéey man ci transport rek laay wax. di jaalewaale suñu mbokk bu dëkk Thiès bu ñuy wax Talla Dieye bi nekkeen ASC Thiès. Mhm. ñu ngi koy jaale waa Thiès allo. allo ñu ngi lay dégg bu baax sëñ Cheikh. ci transport rek laay wax. ayca yow la ñuy déglu. liñ ci doon saafara daanaka dara saafara wu ci. Mhm. liñ ciy jooy muy problème mu camion yi ak suñu diggante ak police yi. Mhm. diggante port ak ak ak ak ak mbaaw daanaka lu ma neuf montage nga fi gis benn oto mënta a dem da ngay gis oto bu jéggi ci raay bi ñu taxaw di ko contrôler oto yi ndaw yi wàcc war a ñibbi duñ dem. Mhm. nga dem buntu Pikine. huit heures bu kesee ba jot da naa naan ab gendarme mu nekk fa oto du dem oto du dikk bii si taxaw ci kaw tali bi ñuy agressé nit ñi jël seen xaalis gendarme yi ngir yàlla yonent bi nañuy monté ba vingt deux heures wala vingt trois heures ba mën a régler situation mais benn oto du dem benn oto mënul dem ñu fekk fa oto yi ndaw di jël seen xaalis loolu rafetul gendarme yi nañuy dimbali di monté pont poste Thiaroye yi camions yi nga xam dañuy yéeg ci kaw commandant bi ñu jël ay responsabilité def fa tableau ba ñuy yéeg ci kaw ñu ngi yéeg ci kaw di reculer ci kaw oto ndaw di leen gaañ ñu jàkkaarloog ñoom di ko gis comme ñun mënuñoo wax ñu bàyyi sëfër yi bàyyi ko na gendarme na commandant bi jël ay responsable def ko sens interdit benn camion ba ñuy yëgati ci pont yi. Mhm. loolu kay xanaa ñoom man nañ ko. ñun dañoo mën amuñu ministre transport boo xam ne jéemul dara ci transport jéemu ci dara réew mi li ci ne lépp kenn mënu koo wax. jërëjëf sëñ bi leer na nañ jërëjëf leer na nañ ñu dimbali. Mhm, état na jóg def li mu war a def ci transport kenn ku ne def li nga war a def mais état deful dara. intérêt ak politique dong moo ne ci réew mi politique rek. jërëjëf kon xalaatam la ñuy xaar beneen xalaat tey nag àjjuma la libre antenne 88 628 14 14 allo. salaamaaleykum wa rahmatulah. salaam. allo. mel ni Abdou Thiam kon kooku euh, buumba dafa dagg bu keneen dëkkaate ci bu ligne bi ñu jël ko allo. salaamaaleykum salaam. Adja Fama na nga def. maa ngi fii sëñ bi. naka waa kër gi ñun waa département Malem mm-hmm, mm-hmm. Mm-hmm. di siyaar di rafetlu bi liggéeyam. ñu ngi fay waa Malem daar bu baax. waaw waaw waaw tey de ci ñëw mbirum nawet bi laa ñëw rek. ci baykat yi. waaw fi mu ne de moom sàq yi jeex na dund bi jeex na ñu bëggoon président bu dimbale ñu. ci ndimbali xam nga nawet bi fi mu toll fi mu ne nii baykat moom dafay sonn. yaa ngi bay trois mois trois mois toog douze mois doo liggéey ñu ñaan ñu bàyyi ñu xel ak tabaski bi ñu si mhm. waaw. ñaan ñu ñu ñaan waaw am na ci am ciy dolli. waaw ma ne waa mbéy mu dimbale ñu si dund bi rek suñu dund dafa jeex xam dimbale ñu. Mhm. jàppale ñu xam nga àll bi léegi métti na ci ñu comme ñun ñëpp ay sénégalais lañ. Mhm. ñu dimbale ñu ci tabaski bi jublu si fi mu ne alal ji ñu amoon de béyee xari nañ ko ndeg néew doole. ñu bàyyi mu ñu bàyyi ñu xel ñu ci dëkk bi lañ bokk.

ñoom Seydou Nour ak ñoom partenaire yëpp maa ngi woon ci baxaw bi Paris moo tax a woote ah. Mhm, mhm. yi ñoree incha allah dinaa ci indil waa RFM. incha allah. waxa ah, parce que maa ngi ne président bi indi nay tracteur. Mhm. mais tracteur yooyu moom dañ koy indi mais vraiment li ma gis daal mooy buñ ko joxoon chef de village chef de bu ne mu am benn tracteur sax. dina am loo xam ne dina leen ko dimbalee daal parce que bi ni tracteur amul village yoo xam ne benn tracteur mën na leen a bayal seen i tool yëpp mais Sénégal problème bi ñu am ñiy séddale ak ñi ñuy sédd problème boobu lañ am parce que souvent ñuy séddale ñi ñu war a sédd duñ ci jot ba pare ñuy séddale aussi duñ xam ni ñu ko war a séddalee naka la parce que duñ xam kaw gi nan la demee yaa may dégg. ma ngi lay dégg bu baax sëñ bi. waaw bu loolu passé bon suñ baa mi lañ am pour di ko bayee suñ baabi bi nag dafa am ñoo xam ne dañoo wàcc appayage ila Touba bi sa giriyaa yi ñu jàpp suñu mbaam yóbbu leen euh, ci benn appayage bu nekk Thiès mhm. euh, nee na ñu mbaam nag quinze mille lay fay man sama ñetti mbaam lañ jàppoon fay naa quarante cinq mille ñetti mbaam mhm. mais problème bi waa Azerut am ni ñu def ba mën a jàpp ay ñetti téeméeri mbaam Touba indi ko ba Thiès jiital ko bu ñu amoon euh, mot googu ci giriyaa bi ku jàpp ku fay mhm. ku ku fay ci grillage bi. Mhm. ku sàcc ci grillage bi dinañ la moon a jàpp. kon loolu la ñu war a dimbalee képp koo xay yaa ngi ci grillage bi di ko sàcc ñu fexe laa jàpp. Mhm. ba pare waa ji nekk ba nga xam ne nii foofu lañuy ñuy jàpp euh, mbaam yi nee na wax na directeur parc an pour képp koo xam ne sa mbaam mu woo ko pour mu yafale ko gayndeem mhm. yi. bëgg a yafal ay gaynde nag xiifale nit loolu baaxul ñun mbaam yooyu lañ am ñoom la ñuy béyee kon nag bu ñu woowee directeur parc an jàpp suñu mbaam yi. ba pare suñ mbaam yooyu ñu ne dañ koy jaay directeur parc an kooku moom maa ngi koy ñaan mu bañ a dugg ci loolu dimbali béykat yi parce que mbaam yooyu lañ am jàpp nañ suñ mbaam yi képp ku sa mbaam réer ci tund bawol bi xamal ne mu ngi tees ñu téye hmm. parce que dafa am ñoo xam ne dañoo ñëw ci giryaa bi daal di sa giryaa su appeya bi suñ mbaam yi dugg jërëjëf leen jërëjëf sëñ bi leer na nañ jërëjëf 88 628 14 14 antenne libre ci rajo Futurs Médias ni ñu koy defee àjjuma gu jot allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. maa ngi leen di nuyu maa ngi tudd Modou Sall nay leer. ñu ngi lay ziar sëñ Modou. naka coono yi baax yéen a ngi am jàmm. sant yàlla bu baax. Euh, maa ngi yëkkati sama kàddu rek. Mhm. ci antenne libre bi nga xam ne yéen a ngi ko jagleel askan wi yëpp ñu ci wax seen xalaat waaye rawatina nag ci période bi ñu toll muy ci wàllu tabaski bi. Mhm. Euh, di ñaax yëpp. Mhm. ñu bàyyi xel rek ni tabaski moom benn fan la. waaye nag nañ bàyyi xel itam ñi nga xam ne dañoo néew doole te te war-war bi war ndax santaaneb suñ borom la. loolu nag bu ma koy wax dama koy dut baaram ci ñi nga xam ne tey jii lu mel ni ministre élevage. Mm-hmm. ndax éleveurs yi am na ñoo xam ne ni sax dégg naa ci suba ci seen antenne bi yaakaar naa laa ko dégg am na ko ni situation yi am na luñ ci jot waaye am na lu ñu wëggut lu jëm ci wàllu tabaski nag nga xam ne daanaka mëtututub semaine ku ciy xaar situation boo xam ne am na lu ci ñëw am na lu ci ñëw jàppal nga kon li ñëwagul moom dootu ñëw. loolu échec ndax ministre bi wër na daral yëpp waaye wëril daral yi loolu goo si ñaari xar yoo siin wala ñetti xar yoo siin nga dem photo wu fa loolu taxut ñuy wax dafa am loo xam ne état bi daf ko yëkkati jox ko ministre élevage pour mu war ko subventionné ñi nga xamante ni ñooy éleveurs yi war ko jox ñi nga xamante ni maanaam ñoom ñooy élevé di def ay opération tabaski hmm. fii ci Touba gii nag wala ci département bi ña bu doon tini tukka déposé woon ci demande yooyu ñaara ci jot wala ñett ci jot ñett ñëpp jotut loolu échec la ndax ministre Samba Ndiobène kat bi mu fi nekkee yaakaar naa ne loolu daf ko réussir total réussir na ko total li nga xam ne moo war na génn di dem ci ñi nga xam ne dañuy élever di def ay opération tabaski daana yegg ci ñoom ministre bii fi nekk nag bañ na ko ba bi muy ñëw sax fii ci département bi rus naa woo ñi nga xamante ni maanaam ñoom ay kilifa lañ ci département bi wala danañ ko laaj ni ko demande yi nga xam ne moom la nit ñi déposé woon ci li nga xam ne mooy opération tabaski anamu feneen fu mu dem itam noonu la fa doxe loolu nag ku koy def da ngay def loo xam ne maanaam liggéeyaloo président de la république yaa ngi koy ésegal te loolu itam dañ koy wax ba ñëpp dégg ko parce que ñun ñoo àndoon ak ñoom mhm. buñ leen jëlee nag jox leen ay poste de responsabilité buñ ci defu li ñu war def duñ balaame waa réew moom la balaame dañ koy leer ba mu leer nañ ci bopp nit ñi leer na nañ ni xalaatam la ñu taataan beneen xalaat ci 88 628 14 14 antenne libre ci rajo Futur Média asalaamaaleykum waaleykum salaam Fama Ndione sëñ bi ñu ngi lay ziar delloo ziar Makhtar Mbodj waa Kaam Tali américain. ah ñu ngi lay ziar sëñ Makhtar. delloo ziar Fama euh, dañuy ñaan yàlla suñu borom tabaski bii ñu jublu yal ci yàgg ak jàmm salaam te yàlla suñu borom jàppale boroom kër yépp ba ñu am xar meeg li ci war dem lépp. amin amin di ñaan yàlla jigéen ñi am dal rek jàppale góor ñi xam ni benn fan la benn waxtu rek la loo ci defee loo mënul tam da koy réccu rek lay mujjee. Mhm. te du tee àddina day continuer bés bu ne la nga doon dépensé da nga koy dépensé jamono neexul te yàlla yemalewul mhm. ñi am te yàlla bu nga xam ne moo leen dimbali yàlla nañ jàppale néew bi doole yi. amiin kenn ku ne xam nga ki taxaw yow mu néew doole jarul télévision jarul rajo mën nga ko def si sutura dem jox ko la ngay jox yàlla bindal la ab tuyaaba. Mhm. bi loolu weesoo dama ñëw si mbas mi. mbas mi mosu fee jógee dafa wàññi ko woon rek. tey bu yokkoo itam dëggalu Sénégal yi dëgg nañ mais état du Sénégal mooy entier responsable bi. Mhm. mënuma d'accord en tant que président de la République. réew mi fu mu toll ak jafe-jafe koom jafe-jafe santé nit ñi di cooy di daw fu nekk nga ni yaa ngay dem di def ay ay mobilisation ay tournée politique ba di annoncé ba si yokk ay gloria loolu bokkul sax ci respecté ñi nga xam ne ñoom ñoo la fa je désolé man de am naa lu ma bett si président Macky Sall ñu ngi ñaan yàlla na yàlla suñu borom jubbanti ko delloo si ko teg ci ay raay te jox ko entourage baax ñi ko entouré baaxuñu ñoo entouré woon président Abdou Diouf dugal ko ci ay jafe-jafe rocceeku entouré président Abdoulaye Wade dugal ko ci ay jafe-jafe rocceeku dawat ñëw sax am na xam ne Wade lañu santoon nee nañu bàyyi seen santu bàyyi ñu ngi fii télévision nañ génn kii tey dañu ay ay euh, Sall Sall lañu sant te ñooñu demee ils ne rendront pas compte sénégal yi soxlawuñu leen Macky Sall rek mooy rendre compte sénégal yi. Mhm. kon yàlla nag suñu borom bi jubbanti. delloo si ko dalal xelam mu xam ni réew dafa loo mën gis ci àddina dafa am àpp. app bi jotee dafay jeex yal na jeex si jeex du rafet kon yal na ko yàlla may wér may ko xel mu dal mu mu xam ni ñun ñoo ko fal gannaaw yàlla suñu borom mu jàppale yërëm askan wi. jërëjëf sëñ yàlla may tabal ci jàmm sant jële fi feebar bi yàlla ko yàlla def si barke sëñ Babacar. amin amiin amiin jërëjëf sëñ Matar yoon nag jàmm nuyu suñu auditeurs yi nekk ca wakam yépp allo. waaleykum salaam. soxna si ñoo ngi ziar ñu baax. delloo ziar sëñ bi. man laa tudd Mbour ñu ngi lay ziar bu nga yekk kàddu gi tuuti rek déggante bi gën a leer. waaw dañu bëggoon intervenir rek ci affaire élèves yi doon taal seen fii fële. ayca ayca. waaw xam nga xale lu mu gis rek am na loo xam fu mu ko gisee. Hmm. waaw eh, léegi étudiants yi nga xam ñoo fi taaloo ñoo fi doon xeex bay yàq ci eh, nu mu tudd université bi. Hmm. xam nga loolu bu fekkee ne xale mu ngi koy gis nit ñi di sanctionné ñu leen ñu war ñu leen sanctionné xale yi tamit ñoom pour ñoom dañu yaakaar ne loolu rek mooy mooy dëgg te xale am na loo xam ne ñun dañ ko ci war a teel a yar élève bu njëkk ba dafa daan am yar mais élève boo demee bay mer di taali ay taaru ban di taali say jumtukaay yow kan nga koy def sa bopp nga koy def kon nag na parent yi jóg ñu teel cee jóg parce que benn ngi noonu ñaari ngi bu buñ ko seetaanee rek day gën a jëm kanam te loolu baaxul ci xale yi. Mhm. xale bu ñeen mu ñooy avenir ëllëg dañ leen war teel a yàq. Mhm. nit doo na boo nee damay mer rek damay yàq yàq baaxul waaw man nit mën ngaa mer nit mën ngaa am loola naqari defe neneen ni dul maanaam di yàq di taal loolu baaxul réew mi loolu yoru ko nañu xoolaat bu baax ñu def dëkk bi. parce que vraiment lii buñ ko seetaanee dana jëm kaw waxuñu nag. ñu sant ñoom sax li ci doy waar mooy du du taalu mer taalu mbégte la école dafa tëj ñuy jubilé. waaw loolu looloo ci xaw a doy waar. waaw loolu loolu mooy lan. Mm-hmm. Ah, loolu loolu mm-hmm. loolu baaxul parce que mën nañ ko commencé foofu ëllëg ñeneen nag defe na loolu la ñu def ko def def ko merukaay te loolu baaxul. Mm-hmm. waaw nañ nañ ci teel a wax. waaw ñu yar waaw léegi bi ci des mooy affaire mbas mi. Mhm. nit ñi fi mu nekk ñi war nañoo tukki war nañoo dem di eh, tabaski ji. Mhm. ku ci nekk nag yaa mën a yar sa bopp. gouvernement bi jëlee sanction fii ñu ne gouvernement bi nangam nangam te sanction yooyu amu ci amul solo ku ci nekk nag yaa war a yar sa bopp fa nga jëm ngay xool na ngay demee boo demee nga xool sa tooguwaay. Mhm. ñu nekk ci jàmm parce que mbas mi fi mu nekk nit ñi gëmuñu ko de mais am na. ku seetaan télé yi di gis nit ñi ni ñi ni ñuy feebare nga xam ni am na. nañ jël suñu matuwaay suñu matuwaay bopp bu buñ buñ jël lépp rek nekku ci gouvernement gouvernement mënul def lépp mhm. nit ku nekk yaa mën a yar sa bopp feebar bi fi mu nekk nii ñoom ku ci feebar am na moyen yoo xam ni mën ngaa faju ñu nag ñu yàlla baal néew ji doole ñi xam seen loxo jot seen gannaaw amuñu yenn moyen yi mhm. nañ jël ku nekk da nga jël teel a jël sa matuwaay mhm. bul xaar ñaa la takkal masque bul taal ñaa raxasul defal nii nañu wax dëgg yàlla nit ñi nañu yar suñu bopp waaye booy ñëw ba Macky Sall nii gouvernement bi loolu wala ministre de la santé li mu jël war waruñ koo jël déedéet ñoom fi mu ne boo defulee boo waxulee par exemple bu musiba amee ñu ne lu tax waxuñu woon te boo waxee ñu ne da ngaa da ngaa soxor wala da nga déglu déedéet kon nag nit ki da nga yar sa bopp avant ñu di la yar. Mhm. loolu daal lu nga maanaam daal laaj bu ko ñu. jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax suñu Pape jërëjëf jàmm def ci jàmm feebar yàlla génne ko fi tabaski yàlla bu ñëw kaay yokk jërëjëf jërëjëf sëñ Pape ñu xool keneen ku nekk ci bu mu jokkoo bi Abdou Thiam vingt 628 14 14 auditeur bu mujj bi allo. salaamaaleykum soxna si ñu ngi lay ziar. waaleykum salaam delloo ziar. mbaa yaa ngi si jàmm bu baax. sant yàlla bu baax. waaw Omar Faye la réew Maawo. ñu ngi lay ziar sëñ Omar. damaa duggoon léegi mu rëy. Mm, d'accord. ñu ngi leen di ziare bu baax di mm. woote fii ci réew Maawo. Mm-hmm. di rafetlu émission bi du nuyu sama mbokki yi ma fekk yi ma fekk ci di wax ne comme li ma doon wax ci réew maaw rek mooy wàllu ndox mi nga xamante nii ñu ngi ko doon jooy mën naa ne ay deux cent ci ginnaaw ba tey mm-hmm. ñu ngi koy interpellé Macky Sall mu demal nu ci ndox ak yoon woo xamante ni dafa war a jógee réew maaw dem Touba Toul mm-hmm. mu nekk yoon woo xam ne bu ñu amoon latrik bu xongu sax dina baax ci askan bi mm-hmm. parce que ndox mi tamit manqué na trop fii réew maaw ndax it vraiment tamit euh, Macky Sall ñu ngi koy jaajëfale tamit ndax nit ki bu la jëfalee da nga koy wax ndax vraiment liggéey na ci réew ma ndax fi mu fekkoon réew ma vraiment am na fu mu ko yóbbu ci wàllu courant ndax wax dëgg yàlla courant bi moom am na fu mu commencé am na fu mu yem waaye des na tamit nañu ñu dimbali waaye ci wàllu wàllu courant bi tamit ci réew ma mhm. mu gën a yaatu ndax euh, population bi itti nañu ko trop waaye ndox mi daal gën naa doon li gën a ja li gën a xam ne tey moo gën a jàmm mhm. moom la réew ma gën a soxla muy wàllu ndox vraiment tamit euh, di wax ci wàllu tabaski bi jëm rek Sénégal moom dimbalante rek ñu xam mhm. nañu dimbalante rek jàppalante te yàlla suñu borom rek tax ndax jëf ji moom nañu koy jëf ngir jëmee yàlla rek ki tànne na dimbali ki mu tànne rek bu ko defee Sénégal mën a jëm d' accord d' accord ñu kon jërë ngeen jëf mbokki doon déglu rajo Futur Média seen émission penco tey mu nekkoon antenne libre.